طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي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 maa ngi lay ziar bu baax Aba maa ngi lay ziar bu baax Aba waaw waaw waaw yow tam yow maa ngi lay jaale lu ñu bokk waaw waaw di ko ñaanal rekk suñu borom xare ko àjjana waaw nit ku baax nit ku yaatu waaw góor yàlla dëgg ku yaat na waaw dem na waaw yàlla nag mooy dogal ci barke weeru koor bi yàlla na ko yàlla xare àjjana jégal ko bàkkaaram bi jaaxe rasulullahi alayhi salaatu wasalaam moom noonu la mel waaw moom moom nag ñoo bokk dëkk fii juddoo magandoo doo mais nit ku baax la waaw baax baaxam demoon dem na ci ba ci bu yoree benn sax dala koy forcer ba jox la ko benn moom da koy da jox la ko ba moom mu toog waaw loolu góor yàlla dëgg moo ko mën te noonu la meloon waaw nit ku baax la woon waaw barke yonent bi waaw ku baax la woon Aba. waaw man la tata Émilie lañ may woowe Blaise Senghor waaw li ma mën a wax rek si suñu mbokk bi dem nii mooy li ñu jot a dund ak moom man moom xam naa ne ku ma bëggoon la ndax chaque jour bu ñëwee ñu ngi kaf di foo diree xëy na feebar bee def ba nga xam ne rek amatuñu yenn affinité yi peut mais liñ ci waroon def commencé ko ci directeur centre culturel Blaise Senghor Aliou Badiane ba ci suuf liñ ci mënoon def nañ ko ndax am na instant boo xam ne foofu la logé woon Balla Diop muy Aliou Marega docteur ñëpp ñoo xam ne ñii vraiment defoon bëggoon nañu def lu baax pour tey ñu bañoon yegg si ba fi def nañ ko mën daal li may wax mooy nañu delloo ci xel yi te xam ne nit du xaalis rek mooy nit nit ki du parce que dafay nekk ci benn situation dañ ko war a fàtte walla di ko daw moment bi nga xam ne moom la ñuy soxla mooy moment bi mu feebar nit ñi nañu delloo si waat seen xel te xam ne artistes yi sonn nañu soxla nañ ndimbal lii moo war a tax mutuelle bii ñuy jàmbat boobu ba tey ñu taxawal ko kon tey bu taxawoon foog naa ne tey duñu nekk ñun man mii particulièrement di ket di demander un peu xaalis pour jàppale ko mu faju maa ngi gërëm aussi DEA directrice des arts xujja ndax moom tam bañ ko ko waxee def na si li mu mën pour ñu defal ko analyse yeeg yooyu yi mu waroon def yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant bañ guddal wax bi di ñaanal ki fi jóge yàlla xaare ko àjjana baal ko lépp loo xam ne defoon na ko ci kaw suuf mu baal ko waaw waaw xam nga rek moom ni ko yàlla bindee fu mu tollu day bëgg a reetaanloo nit ñi loolu moom boo bu amee lu si lu mënta am rek muy métti lu mu mënta am mu ngi fexe rek nu mu reeloo nit ñi xam nga kooku nitu yàlla la nit ki du question ne dafa takk cravate wala day jóge day dem mosquée wala église du loolu nitu yàlla da ngay bëgg a bégal nit ñi waaw même buñ la ko delloowul moom loolu la doon def fu mu toll mu ngi bëgg a bégal doomu aadama man particulièrement man damay mer ak lu si mënta am su dugg see rek dafa may ne ça va pas wala nii loolu daal maa ngi koy wax di gërëm aussi Kader ndax ba affaire yi amee dama ko daan woo mu may xelal maa ngi woo kii maa ngi woo kii pour ñu jàppale ko loolu aussi bëggoon naa ko wax merci. maa ngi leen di ko mm, jaale xanaa delluwaat di waxaat xanaa delluwaat di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di santaat yàlla bu baax a baax di leen ko jaale yéen waa web info di ko jaale suñu bokk suñu bopp di ko jaale ñëpp ñi fi toog euh, docteur li ñu wax mën a wax si moom mooy nit la koo xamee ni xol bu set la yor du jàpp mer ku bëgg mbokkam ku bëggoon mbokk la ku mën reetaanloo ay nit la fu mu nekk jotaay bu mu nekk dina détendre atmosphère bi de telle sorte que ñëpp buñ stressé woon seen stress dina deñ euh, ah di ko ñaanal yàlla rek feebar bi koy yóbbu yàlla na nekk yàlla nekkoon xisaabam yàlla bu mu dajeel euh, lu koy jaaxal ci biir bàmmeelam yàlla xare ko aljana ci firdawsi aljana yi gën a kawe yàlla wane la ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëri na parce que euh, biñ nekkee xale pratiquement vacances ñoo ko doon passé ndoo ensemble bien vrai rek suñ ñu jaay la woon mais dafa wàccee woon boppam de telle sorte que maasee ak ñun kaf ree xam nga bu ñu àndee kenn duñu ñeme laal au contraire bu daan taxaw sax ñun dañuy am fit dañ doon yàkkamti gis ko ànd ak moom comment di tooñ parce que daf ñuy leer ne am nañ ku ñu pour ku ñu protéger donc il a toujours été un protecteur pour ñun ñoo ñàkk parce que nijaay la si ñun waaw ku bëgg mbokk fonk mbokk euh, donc mënuñ mënuñ mënuñu xam li ñu li ñu ñàkk ko mais dañuy bàyyi rek ci loxo yàlla parce que yàlla moo soxla moo nangu yàlla moo soxla. boo toogee di ko wax fii day kenn kenn mënu ko lim. mais li ma la mën a waxal daal mooy lu baax la woon ku ku baax a baax la woon xam nga ba mal ne nit la koo xam ne lu jàpp meer xol bi dafa set rek mooy tëj tëj nga lépp lu baax moom euh, en toute honnêteté bëri na luñ ci dund lu bëri na torop torop mais xam nga ak comme actuellement nii xel yi dafa xaw jaxasoo pour nettal la ay anecdote day xaw day day xaw day war quoi hmm. اللهم قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القران وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السمع او نسيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الحان لمن اقرب مؤذن حقه مع الاعداء والقلب والاحسان وهب لنا بالخير والسعادة والبسعادة واللمام ولا تحتم لنا بالسر والسهامة والدرات والكهية ونقلنا قبل منا يا من نام القتل والكسل وأمنا من هزاب القبر ومن سؤال المنكر والنكر ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وهاف عقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقل ميزاننا بالعسنات وثبت أقدامنا على سات وأسقنا في الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان أستجب بها أنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أحتنا جميع ما سألناك به في السر والإهلال وزد من فضلك واسع بجودك وكرمك يا رحمن يا رحيم اللهم صل على سيدنا محمد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 مونسا وفي القيام سفيها وعلى صراط نوره والى الجنه رفيها وبيننا وبين الناس ستر وحجابا والى الخيرات كلها دليل وامام بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اهدنا بهدايه القران وحافنا بحيث القران ونجنا من النيران بكرامه القران وادخلنا جنه بصفاحه القران وارفع درجات بفضلك القران وكفر عنا سيئاتنا بتلاوه القران يا ذا الفضل والاحسان وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين اجمعين اللهم بلغ سوى ما قرأنا الله ونور ما طلعنا إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة وإلى أرواح أصحاب رضوان الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأعزائنا ومسائقنا خاصة وإلى أرواح أدية واسعة متوسطة ورحمة إلى روح عبدكم محمد فال اللهم بلغ سوى ما قرأناه ونور ما طلبناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة وإلى أرواح أصحاب رضوان الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح أدية واسعة متوسطة ورحمة الله عبدكم محمد فار اللهم بلغ صواب ما قرأناه والنور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة وإلى أرواح أصحاب رضوان الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وآساتنا ومسائقنا خاصة وإلى أرواح أدية واسعة المتوسط ورحمة إلى روح عبدكم محمد فات جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات أجمعين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 imaam Ndiaye moo ko ñëw wàññil ñu gindi gi te mi ngi nii toog moom ba tey macha allah ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm di wax rek ni ñu leen di waat massa waat coono yi xam ni kii nga xam ni moom la ñu ñàkk mooy sunu rakk bi sunu xarit ñu wax ni képp kuy ñaan di ko ñaanal. da nga tudd turam wax du Dia Fall yàlla na ko yàlla yërëm ndax defe naa ni malaaka yi xamuñu docteur ki ñu xam mooy Amadou Dia Fall kon nañu ci nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax surnom mën naa dema dema dema dem ba yàqal aj dem ndax moom dañu ne ki ñu ko tuddee moo doon docteur moo tax ñu koy woowee docteur docteur bi dem ba macha allahu law waaye képp kuy ku koy ñaanal na nga wax ni Amadou Dia Fall mii ko yàlla yërëm te jéggal ko bi jaahi rasul sallallahu alayhi wa sallam di wax rek ni loolu yëpp ci ndigalu kilifa yii toog la ñoom ci seen i làmmiñ dañuy waxe nee na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp den massa wu yi ndax xam nañ ni lii ñu nekk xëy na dimanche la waaye c'était pas évident kenn ku nekk jub waxtu woowu ñëw teewe lii nga xamante ni mooy ñaanu Amadou Dia Fall mii macha allah doon ku baax lool doonoon doonoon ku yiw lool ndax macha allah ku ko gis rek say bëñ moom day ma macha allah. Amadou Dia Fall képp ko gis docteur ñu ne képp ko gisoon li ngay njëkk def mooy reetaan ndax daan bégal xol yi macha allah fu mu toll mi ngi bégal nit ñi fu mu toll laan ngi doon def ci xol yi macha allah mbégte rek rek rek rek rek kon mbégte googu doon def ci xol nit ñi yal na ko yàlla bégal bii mu nekk tey jii am nañ ci yaakaar ci weeru koor gi macha allah am nañ ci yaakaar man damay ñaan yàlla am bés bu mel nii ci weeru koor yàlla yéex lool tabaarakallah waaye weeru koor lañ ci wax yépp imaam yaa ngi nii toog macha allah xëy nañ ci dugg bu dee loolu kese kese kese moo nekk ci loolu moo nekk ci moo nekk ci aji dem goo xamante ni macha allah dem na ci weeru koor ah docteur bokk na ci ñi am chance yaakaaru na ni mu mel nag xëy na moo tax yàlla yóbbu ko ci weeru koor macha allah yàlla bu yaakaar tas yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal bi jaahi rasul sallallahu alayhi wa sallam oustaz ibrahima fall mu ngi fi di oustazu na bi di oustazu daaira suada ku ne xam nañ ni bu ñuy wax ci turu njaboot bi boobu li ñuy wax ci turu As Malick Fall nga xam ne ñun moo ñu def li ñu ne waaw je pèse bien mes mots As Malick Fall ñun moo ñu def li ñu ne ndax 79 ba tey jii bu ko génne sunuy at ñun boobu tout tànk la mu formé daa ira dugal ñu ñun loolu boo ko sunuy at lu ñu dara. kon ba ñuy bokk daayira lii ñu taxaw di wax tey xamuñu kon lépp lu ñu def ñun sadaqatul jaariya asmaal baax yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal bi jaahi rasul sallallahu kon ñuy wax it ci turu daaira Soada turu président Mame Ndiaye ak turu président Ibrahima Bara woote na léegi léegi nee na mu ngi jaal mbooleem mbooleem faaleen tabaarakallah mu leen di jaal li tax agsiwul mooy dafa nekk France waaye nee na mi ngi leen di jaal ma masawu coono yi laajte na ma kenn ku nekk laaj na ma dama faal ami saw faal macha allah buuba ñëpp ñépp na leen ñëpp na mu ne ma sori rek sori rek moo tax agsiw ma fa waaye su ma fa nekkoon incha allahu kenn du fa jiite waaye comme yéen ko nga fa yéen a jottale ba sama njaal macha allah lii la waxoon ma wax ko ak kàddu yi nga xamante ni moo jóge ci njaboot gi ak kàddu yi daaira Sohada di kàddu yi président Mame Ndiaye Ibrahima Fall di ustaasu daaira bi ah ustaas Ayuba Fall bàyyi woon ko ba ba tey jii mu koy doxal macha allah kenn musul am ci moom benn xaarma yàlla tabaarakallah mu ngi ñi toog xam naa ne da jël ay kàddu kii di Sadibou moom moom lañ joxoon kàddu gi yëpp lépp moom lañ ko joxoon moom moo ma imposé ma jugal wax moom it insha allahu dina jël kàddu kon salaamaaleykum wa rahmatullahi sunu góor gi mbay nga ngi nii toog di borom kër ci ami saw fall mu ne tabarakallahu di ko baax lool salaamaaleykum wa yàlla julli ci sayduna muhammad nee na mi ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp waaye di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp it di sant yàlla nag di sant yàlla nag bu baax a baax a baax docteur mi fi jógee nee na docteur mi fi jógee ku baaxoon la na ku baaxoon la ku ku laabiir ku bëgg xale ku bëgg xale kon foofu mu jëm yal na ko gënal fa mu jógee. mais kon fa mu jëm yal na ko gënal fa mu jógee. njaal mi nag maa ngi koy jiital maa ngi ciy jiital dëkkandoo yi d'abord. nee na njaal bi ñu ngi ciy jiital dëkkandoo yi. parce que dëkkandoo mooy mbokk. ndax dëkkandoo mooy mbokk. su ma ci paree ma teg ci seen daayira bi su ma ci noppee ma teg ci seen daayira bii. te yow laay teg ci bopp bi yow Ousmane Keita. nee na man mi ne teg ci bopp bi. parce que nit du am kóllëre. nee na nit ñu am kóllëre lañu. li nga wax ci alaaji Malick. nee li ma wax ci alaaji Malick. du fay ba ilaa yow diin. nee du fay ba ilaa yow mi diin. waaw parce que alaaji Malick turam ba ilaa yow mi diin. ndax alaaji Malick turam du fay ba ilaa yow mi diin. te foo toll yaa ngi feddali kóllëre. nee na foo toll yaa ngi feddali kóllëre ko ñii fi toog. nee ñii fi toog. muy ay jigéen. muy ay jigéen. di ay góor. di ay góor. ñii ay ñi ci ëpp ñëpp ñëpp la tam lañu. ñi ci Bopp ñëpp ay rakam lañu. ñii bokk naa ñoom baay. ñii bokk na ñoom baay. ñii bokk naa ñoom ndey ak baay. ñii ndey ak ñoom noonu la ñu demee. nee na ñooñu noonu la ñu seen ñetti papa rek ñoo bokk ndey ak baay. seen ñetti papa rek ñoo bokk ndey ak baay. Amath Seck Fall. Amath Seck Fall. Babacar Fall. Babacar Fall. ak euh, Maguette Fall Jama Jama. ak Maguette Fall Jama. man ñoom seen papa. nee ma ak ñoom seen papa. bu ma neexee wax papa bu ma waxee wax Najaay. su ma neexee wax papa su ma neexee ne Najaay. waaw looloo tax. looloo tax bi ma tolloo ci wut soxna bi ma tolloo ci wut soxna sama yaay défiñe ma ne ma demal kër Faat Njoor sama yaay ne ma demal kër Faat Njoor Faat Njoor mooy yaayu Ami Sow mooy yaayu Ami Sow looloo ma dugal foofu ne looloo ma dugal foofu gannaaw loolu ñun ñëpp ay bokk lañu gannaaw loolu ñun ñëpp ay bokk lañu kon maa ngi koy jaale famille bi yëpp kon maa ngi koy jaale famille bi yëpp di ko jaale bokk yi di ko jaale mbokk yi. dëkkandoo yi. dëkkandoo yi. soppe yi. soppe yi. am di jàmm yi. am di jàmm yi. ñëpp maa ngi koy jaal. ñëpp maa ngi koy jaal. parce que xam la xam ni nit ku baax la woon. mais docteur koo xam xam ni nit ku baax la woon. dama ñëw léegi dama toll ci bopp koñ bi. mais ñëw léegi dama toll ci bopp koñ bi. xale bu góor bi xool ma ne ma père foo jëm. xale bu góor bi xool ma ne ma père foo jëm. ma ne ko man de dëju docteur laa jëm mu ne ma continuer. loolu dama lu ko waral yëpp mooy mu am am jàmm bu mu amoon. nee li waral loolu mooy am jàmm gi docteur Amath mboolem commune Biscuit. comme ni nga ko waxee rek. nee ma ko waxee. dem na ci weer wu na ci weer wu tedd. kon yal na ko yàlla xare aljanna. kon yal na ko yàlla xare aljanna. nee kon mi ngi tënk wax ji foofu. di jaal ñëpp macha allah. di waxaat rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaan sunu borom subhanahu wa taala ne sunu waa ji docteur yal na yàlla defal ko la mu wax ci alquran yal na yàlla defal ko la mu wax ci alquran mooy ne mooy ne yaa layta qawmi yaclamuuna bima yaa layta qawmi yaclamuuna bima xafara li rabbi wa jacalani min almukramin yàlla na yàlla boole. nee na yàlla ko ci yàlla boole. ci barke Seydina Muhammad. ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barke weeru koor wi. barke weeru fukki fan yu njëkk yi. barke fukki fan yu njëkk yi. nga xam ne awwaluhu rahma. nga xam ne awwaluhu fukki fan yu njëkk yi yërmande la. nee na fukki fan yi nekk ci digg bi. nee na njëggal la. nee fukki fan yi mujjee mooy ub nañu. waral nañu ñëpp ci safara macha allah. nee na yàlla yàlla dugal ko ci barke fukki fanu yërmande yi. waaye ñun sunu kaddu. waaye ñun sunu kàddu bi ñuy yëkkati. bi ñuy yëkkati. gannaaw bokk yi. gannaaw bokk yi. di bu fal mii. di bu faal mii. nekk sunu mag. nekk sunu mag. ak sunu jarbaat bi ak sunu jarbaat bi Abdou. Abdou Diouf. Abdou Diouf. ñu yëkkati kaddu rek. ñu yëkkati kaddu rek. muy ay kaddu cat. muy kaddu cat. ak ngërëm. ji sunu yaay ji toog. ci sunu yaay ji toog. muy yaay Fatou Diop. muy yaay Fatou Diop. yaay Fatou Diop. yaay Fatou Diop. nit ku baax la. nit ku baax la. ndax docteur. nee docteur. dëkkul fii. nee mbaax rek moo ko fii. mbaax rek moo ko indi fii. mooy mbaaxu yaay Fatou Diop. mooy mbaaxu yaay Fatou Diop. nga xam ni mooy yaayu aram. te aram ku ne xam na ko. aram ku ne xam na ko. ak nday jama nday jama. benn lañu. nee benn lañu. waaye tey. waaye tey jii. jëfam moom. jëfam moom. daf ñu fàttali rek. dañoo fàttali jëfu. maire Fala. maire Fala. nga xam ne mooy yaayu docteur. nga xam ne mooy yaayu docteur. ndax euh, booy leble rek leble lu baax. ma ne. nee koy kuy leble nag nga leble lu baax. yaayu docteur. nee yaayu docteur. yaayu ñëpp la. na yaayu ñëpp la. njaboote ñëpp. njaboote ñëpp. uuf ñëpp. uuf ñëpp. yaatal ñëpp. yaatal ñëpp. ñun xam nañ ci dara. ñun ñii nee na xam nañ ci dara. ndax buñ daan ñëw sax mënuñu ndax añ ngeen. mais buñ daan ñëw li ñuy njëkk laaj mooy ndax añ ngeen. wala reer ngeen. wala reer ngeen. kon docteur bu ñëwee fii ci maire Fall. kon docteur bu ñëwee fii kër maire Fall. mu fat ko maire Fall Diop. mu fat ko ba yàlla dogal mu génne fi àdduna. ba yàlla dogal mu génne fi àdduna. kon kaddu yi ñuy yëkkati. kon kàddu yi ñu yëkkati. du rek du lu dul du lu dul rek ay kàddu cant. ak kàddu ñaan. ak kàddu ñaanal ko yàlla. ñaanal ko yàlla. njabootam gi mu yor. njabootam gi mu yor. ci na. ci ndigalam ci ci njiital. nee ci njiital. doomam. bu ñuy wax. bu ñuy wax. Iba ñoom ak rakam. nee ñoom moom ak rakam. ñoo ko téye fii. ñoo ko téye fii. docteur tëdd fii feebar. docteur tëdd fii feebar. mënul boppam dara. mënul boppam dara. doomu mère Fat Diop. doomu mère Fat Diop. ñooy yëkkati. ñooy yëkkati. ñooy teg. ñooy tëral. teg ñooy jox mu naan. ñooy jox mu naan. ñooy jox mu lekk. ñooy jox mu lekk. kon ñooñu kenn amul seen fay. kenn amul seen fay. dañuy ñaan yàlla. dañuy ñaan yàlla. wuutuñu ci fayal leen. yàlla yàlla ci fayal leen. ci barke yonent ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barke alquranul karim. ñu koy jaale nag. ñu koy jaale. bokkal faaleen ñi mu bokkal faaleen yëpp. ñëpp ñu ngi leen koy jaal. ñu leen koy jaal. di ko jaal rakkam yii. di ko jaal rakkam yii. Binta Caam ak ñoom Binta Caam ak Maguette. ñoom ñëpp ñoo ngi tam. ak ñoom ñëpp. di ko jaal mboolem caameen. di ko jaal itam. di ko jaal itam. mbokk artistes yi. mbokk yi. am di mi ñoo jël ca bañ koy na am di mi ñoo jël na kaddu ca bañ koy julle. ñoom ñëpp ñu ngi fi. nee na ñoom ñëpp ñu fi. commune commune de Missou Sëri. Assane Ndiaye mi ngi fi woon. Assane Ndiaye mi ngi fi woon. ñoom ñëpp daal. ñoom ñëpp. dëkkandoo yi. dëkkandoo yi. ñu wax ni ñu wax ni. docteur docteur ñëpp la. docteur docteur ñëpp la woon. ndawalu guddi la ku ne. ndawalu guddi la woon. ku ne da nga yaakaar ne rek. ku ne da yaakaar ni. yow rek sa docteur. yow doom sa docteur. kon nag docteur. kon docteur. yal na yàlla wuutuñu. nee yal na yàlla wuutuñu fayal ñu ko. fayal ñu ko jéggal ko. jéggal ko. xaare ko aljanna. xaare ko aljanna. aljanna gën a kawe. ci aljanna yi gën a kawe barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp gërëm ñëpp gërëm waa koñu kuy gërëm gi waa koñu xeer yëpp yal na yàlla wutuñ ci fayal leen barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ak imaam bu baax a baax moom mooy tëj def ñu wax ni kaamil bi kaamil bi itam sunu kaamil bi sunu doom yi ñoo ko doon sunu doom yi ko jàng ci njiitalu doomu Ibba Ibba Yane ci njiitalu doomu Iba Yat bii moom moo ko jiite. moom ànd ceeg ay xaritam. ànd ay xaritam. ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa daara ak ñi nga xam ne ñooy waa daara ji. ak jigéen ñu sell yii doon ñu sell yii doon jàpp. ñu ñaan yàlla nu yàlla yàlla yàlla yàlla na nu àgg ni yoon. bi jaaxi rasul sallallahu alayhi wa ko waaye damaa bëgg nit ñi yiw. ñuy laaj kaamil bi. képp ku am loo ciy def. dawal ko sa bàmmeel. occasion la tey jii nga def ci kaamil bii macha allah laaju ñu ñaar man maa ni rek yiiw du doy ku dérangé wu ñëw ba sa kër ñëw ci lii nga xamante ni mooy dëj dañu docteur bii nga xamante ni am na yaakaaru na macha allah dañuy ñaan rek kenn ku nekk ndawal sa bàmmeel ñu def ko ci kaamil bi macha allah jox ko sunu doom yi li des des. mënewul wax bu bari. nee dañoo mënewul wax bu bari. waaye docteur tey jii waaye docteur tey jii mënuñoo ñàkk wax. suñu frère yi ñooñu wax ne. suñu frère yi ñooñu ne faaw ñu jël kaddu. docteur vraiment. mais docteur moom vraiment. dañu doon passé beaucoup de temps dañu doon passé. temps bu bare bare bari ensemble. am na benn kër frère. am na suñu kër benn frère. nga xamante ne vendredi bu nekk. boo xamante ni ajjuma bu ne. fan daan daje. mooy suñu frère am ma di suñu frère Amady Dieng. donc Thierno Mountaga bii. nee Thierno Mountaga bii. moom moo koy indi suñu kër. moo koy indi suñu kër. ñu yàgg ak moom. ñu yàgg ak moom. ñu nag moom frère Kalidou Dieng. nee na frère Kalidou Dieng lañu. docteur desaluñu dara. docteur desaluñu dara. yàlla xam na ne ñu feebar nii dañoo umpale wu ne dafa feebar taxawaay bi ñuy famille bi taxawu ko. nee na umpale woon feebaram moo tax taxawaay bi ci waroon sax macha allahu ñun defuñu ko ci. waaye di ko gërëmee njaboot gi ko taxaw. leen di ñaanal taxawaay taxawaay bi. ne yàlla yàlla fay leen. docteur nit ku baax la woon. docteur nit ku baax la woon. ku yaatu woon. ku yaatu woon. jullite woon. jullite woon. ku amoon yëg-yëg ci doomu. ku amoon yëg ci doomu aadama. ku bëggoon ñun ñëpp. ku bëggoon ñëpp. bëggaloon loolu jàmm ak. bëggaloon ni ñëpp jàmm. yàlla mayoon na ko. yàlla mayoon na ko. ci digg. fin dundam. si fin wu dundam. muy am gis-gis yu. muy am gis yu yu fort. mu gis la rek mu am lu lu lu bare lu mu la yëgal. gis la rek am lu bare bare yu mu la yëgal. ci wàllu baatin. ci wàllu baatin mu leer na lii boo ko toppal. mu leer na lii boo ko toppee. doo ko dégg fenn te ko dina la defal sutura. donc docteur te yàlla mi ngi ko defal sutura. dafa feeñal zaahir nëbbu baatin. ne docteur dafa feeñal zaahir nëbb baatit. zahir boobu mooy théâtre bi ñu ko. gisee mais zahir boobu mooy théâtre bi ñu ko gisee. ci kaw waaye yàlla xam na ne docteur. ci kaw waaye yàlla xam na ne docteur. ku bare woon baatin la ku bare woon baatin la. ñu koy ñaanal nag yàlla. ñu koy ñaanal yàlla dolli ko sutura. yàlla yóbbu ko aljanna firdaws. yàlla tàbbal ko ca aljanna firdaws. jërë ngeen jëf. ñuy wax Balla Diop. di xaritu comédien am. daan na fi ñëw saa su ne. di ko jàppale. di ko yóbbu muy def pansement. ba démb démb nee na ko fan la toll pour mu yónnee ko xaalis ñu am leneen lu ñu def mu ne matul cinq minutes mu war ko ne ko dog na macha allah nee na kon Balla Diop moomu ak mbooleem comédien am mbooleem xaritam nee na ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm defal nañu yàlla yàlla na yàlla fay leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mbokk yi bi ñu néew mbokk yi ba noppi. ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. ngeen taxawaay yi. ne taxawaay bi rafet na. ni ngeen ko taxawoo rafet na. ne yal na yàlla fay leen. ak soxna si nga xam ni moo ko téyewoon. soxna Faat Diop. ne ñu ngi koy sant bu baax. yal na yàlla fay ko. sàmm ko moom ak jabootam. ubbi leen ay bunti wërsëg. nee ak yéen ñi nga xam ni yéen a taxaw taxawaay bu rafet bii. daanaka ñun ñii ngeen ko defal. ngeen di sant bu baax a baax a baax. kontaan nañ seen taxawaay. ñi leen koy sigil ndigaale yal na. yal na ko yàlla yërëm. yal na ko yàlla yërëm. yal na ko yàlla yéege ci aljanna yi gën a kawe. ne yi gën a kawe. ndax yàlla yàlla yàlla ah, yi muy ko am ko am. ne yàlla li muy def. seetu ko am lu bari. seetu ko am lu bari. seetu ku néewle. xeebul dara. xeebul dara. yërmande na ñëpp. yërmande mit yal na yàlla dugal ko ci. bu baax a baax. kontaan nañ ci bu baax a baax. taxawaay rafet na. taxawaay rafet na. génn rek am taxawaay yi. génn àddina rek ah, rek am taxawaay bu mel nii. ne lii yàlla moo koy defal nit. ak place bi weer wi ak weer wi ñu ko defee. weer nga xam weer wi yërmande nee na ni weer wi. weer wi yërmande la. lépp la. nee na yërmande weer woo xam nañ ci ubbi buntu àjjana yi. tëj buntu safara yi. jéngal ñu seytaane. nee na weer wi yiw rek la. weer wi yiw la. déedéet du ko mu neex rek nga génn ci àdduna. kenn du ko defal sa bopp. yàlla na ko yàlla yéege ci yooyu ci yooyu maqama. yàlla de seetul dara. lu ñaaw lépp léppam dafa rafet. léppam dafa rafet. Uh, xel yi daal daal dañ uh, yaakaar yi daal yàlla bu mu tas. ne yaakaar yàlla bu mu tas. li ñu yaakaar ci moom. li ñu yaakaar yàlla bu mu tas. yàlla bu mu tas. kontaan nañ ci bu baax. kontaan nañ ci moom bu baax. taxawaay bi rafet na. yal na yàlla nangu taxawaay bi yépp lépp lépp macha allah. nee na lépp kon yemal nañ ko bi tey jii. kon kon jërë ngeen jëf. yal na leen yoolu ku taxawu nit. yal na defal leen yoolu ku taxawu nit. ku génn àdduna. amin ñu bokk ñun ñëpp jàng fatiha salaatul fatih. mais ñu defal ko fatiha salaatul fatiha defal ko fidaaw defal ko. téeméer ak fukk ak ñeent ci bismillahi rahmaani rahim njëkkee ñeent teg fukk mujjee téeméer gannaaw fatiha ak salaatul fatiha ñu tëjee ko salaatul fatiha ñaanal ko Amad Dia Fall yu ñuy wax docteur yal yàlla defal ko yërmande yii mu wax ci fukki fan yii yal ko yàlla defal bi jaahi rasul sallallahu alayhi wa bismillah amiin amiin amiin amiin amiin yàlla amiin alhamdulilah rabbil alamin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 محمد رسول الله طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع أحمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع